asalaamaaleykum mbokk yi rawatina waa 7vision TV man Chiste Facha tey dama ñëw doxantu fi nga xam ne mooy marché Colobane nee naa leen Sénégal tout fu ne lay dem waaye tey nag dafa ñëw mbir marché Colobane na waxtaanee li nga xam ne mooy la population bi lan la ñuy xaar ci ki nga xam ne mooy suñu njiitum réew Macky Sall ci wàllum couvre-feu bi waaye du ma ci wet damay ànd ak sama caméraman bi kaa ñu doxantu ci biir ci biir daal di waxtaan ak askan bi tey ñuy waxtaanee li nga xam ne mooy couvre-feu bi la ngeen xaar ci président Macky Sall. bon couvre-feu bi président Macky ñu koy nuyu au passage di ko ñaanal jàmm di ñaanal jàmm gouvernement am ak euh, njabootam di ñaanal jàmm Sénégal yëpp di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne yéen ay vision comment. 7 vision TV vraiment di leen sa ci déplacement bi ngeen def pour ñëw fii rendre ñu visite interviewé ñu euh, laaj ñu suñuy xalaat bon suñu xalaat mooy couvre-feu c'est déjà bien parce que tam Sénégalais bari boo leen laajee dañuy dañ naan couvre-feu lan mooy impact am. dañ la naan virus bi xanaa guddi lay dox mais loolu ku ko ku xam mooy mooy gisa noonu parce que virus bi dafa am vitesse bu muy daw vitesse boobu muy daw nag président dafa bëgg a wàññi maanaam vitesse bi ba nga xamante ni wala muy daw 24 heures vingt 24 daf ko bëgg à partir de de 21 heures à partir de 20 heures virus boobu mën a propagation bi mën a wàññi quoi loolu tax mu def couvre à partir de vingt 21 heures. waaw amas billahi min cheytaan rajim ñu ngi nuyu mbokki Sénégal yi di mbokk di nuyu mbokk monde bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di char ñëpp di nuyu président waaw di xaar nag yàq jàpp ne maanaam couvre-feu bi ah maanaam couvre-feu bi ah maanaam damay jàpp ne moom tey moom bi yoon dana ko woyofal ndax it ndax fi mu toll nii boo xoolee diggante bi ñuy xëy ak heure bi ñuy wàcc ci nun ñi nga xam nun commerçant yi wax dëgg yàlla métti nu ci nun lool waaw ñi ngi ñaan yàlla nag aussi tamit di ñaan tamit li nga xam ne muy mbéb mi muy feebar bi fi nekk sunu borom jëlee ko fi ah ñaam dalit aussi yàlla defal leen lu woyof seen kaw ba yàlla def li ñu wér ñi dalit it yàlla musal leen ci ah, boobu daal li ñuy wax président nanu dimbali rek ngir jëmmi yàlla ak yonent bi nanu ko wàcceel bu baax a baax a bu ñu ko mënee yóbbul ba vingt deux ba vingt deux heures daal wax dëgg dana dana dana intéressé peuple bi ndax boo bëggee wàcc dix sept heures bala ngaa dem presque dix huit heures jot ngaa préparé vingt et une am na ñoo xam ne dañuy fande kon nag nanu dimbali ñun peuple ñun ñun peuple Sénégal mu dimbali ñu defal ñu ko boog ba 22 heures bu ko mënee bàyyi noonu nag moom mu mën koo ba waaye tamit a baax koy ñaan. bi daal dara nekku ci ndax feebar bu duggee ci am réew dañuy fagaru feebar bi Macky Sall andiwul ko fi yàlla moo ko fi andi marché bi kenn ku ne lii sa wërsëg yaa ngi koy jot. ñuy wax ci couvre-feu bàyyi xel ni nit ñi ay borom jabar lañ yor tamit gars yi am ñoo xam dañuy xëy buñ xëyee maanaam si la ñuy seen dépense si la ñuy mën a lépp daanaka si journée bi ay bor ay kilifa daanaka ñoo ñooy liggéey si ñëpp foo dem daanaka Sénégal ñu ngi dañuy xëy di gontu di wàcc ku ñibbi am na ñoo xam si dëkkuñu fi waaw man daal li mu si ñaan wax dëgg yàlla su ma soññee daal couvre bi mu jëm koo xëcc tuuti ba si kanam vingt heures yi daanaka li gars yi di wax daanaka gënalu kenn arrangé wul kenn waaw amul kenn ku mu arrangé parce que ñoo xam ne dañuy wàcc marché boo dañu ñibbi fu sori tamit arrangé wul te baaxul si njaay bi sax arrangé wul kenn ñu seen daal bu ko mënoon def vingt trois heures ba vingt deux heures sax maximum baax na waaw bu ko defee gars yi mën nañ liggéey nekk seen jàmm ak salaam waaw ñun daal loolu laa gis couvre-feu bi yàlla vraiment. mais isaan yi moom couvre-feu moom sonn nañ ci premier bi rek dafa méttiwul waxuma laa ñu bëggaat defaat deuxième bay wàññiwaat ay mbir ak yooyu yaa ma gën a nan ko dindi couvre-feu bi moom day ndur ne corona bi gudd lay dox te corona bi chaque jour fekkee ñu ne am na chaque jour fi ah, mi dox. mais guddi rek lañ ci tàmm ne couvre-feu bi couvre-feu bi guddi la na nañu dimbalee dindi couvre-feu bi nit ñi am jàmm wallaahi azim sonn nan sonn nan Macky Sall mo isaan wàccu na ak sénégalais yëpp sonn jaaxle yalwaanee nu dese parce que cinq heures ñu génn ñu marché bi ñibbi géejawaay oto dañuy të couvre-feu ci yoon bi la ñuy fekk bu nee teex suñu tànk ñu yóbbu nu dégg kii sànq naan ma fàttalu salamaas bi fani su géejawaay fanaan naa fa ay nan nu dimbali ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba defal ñu ko 10 heures ñun liggéeyatunu wax dëgg yàlla am añ sax dañuy ta léegi ndax ku liggéey looy foo jëlee looy añee foo jëlee looy reere sonn nañ président nañu dimbali te yàlla rek tax yokkal ñu ko nag kii 10 heures sonn nañ de soxna si sonn nañ ñun marché Colobane sonn nañ ku ne yaa ngi gàddu sab saak bu seen kër jotee ñu ne woop ñu daw président nañu dimbali nag ngir yàlla ñun ñëpp ku ci nekk ay borom kër nga man maa ngi ñu ngi may waaj a génne ndax amatuma sax lu ma fayalu yaas ci place bi amatuma lu ma fayaas ci kër gi nanu dimbali ndax ak moom lu ko neex def waaye nanu sarax ñun population bi sonn man amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan amuñu lu ñu fayalu yaas nañu dimbali wasalaam. du couvre-feu moom moo mën a wàññi feebar bi wala moo koy mën a yokk xam nga te am na ñoo xam ne ñoom guddi gi nii mën a liggéey mais am na ñoo xam ne boo leen bëccëg bi xañ leen guddi gi li ñuy jox seen njaboot lan la ñuy jox seen njaboot loolu amul moom daal li ñuy xaar si moom mooy mu jël beneen mesure boo xam ne budul couvre-feu jël couvre-feu bi tegee ko na le d'accord couvre-feu bi sax dina am si benn si euh, benn côté boo xam ne dina baax mais dina am foo xam ne mënul wéy couvre-feu bi mënul wéy c'est impossible mënul wéy. loolu la Macky Sall moom euh, gis nga ko mooy njiital réew mi gis nga li mu teg ci ndodd askan bi waaye loolu kenn mënu ci dara. ndax euh, moom la fi askan wi teg te buñ ko fi tegee nag li mu dogal dañ koy wax te waaye ku wut doon na li nga xamante si nii métti na loolu boo koy dund rek jàppal ni prisonnier ak prisonnière yi yéen rek. noonu ko jàppee noonu laa ko jàppee parce que ku wut fa buñ la nee yow nga war a doxee say soxla dem dem fu la neex sànnee ko fi laale Macky Sall ne da ngay tëdd vingt heures loolu xam nga ni métti na vingt heures ku koy tëdd yaa ñu nekk sàmm neuf yéen a yem rek. bañuñ mu xaw ko élancé tuuti boobu ba ay vingt genre yooyu xam nga ñun ñu nekk fii di liggéey képp ku ci wàcc à partir de 22h 23h foo jëm demuñ fenn ñoo ko gën a gëm feebar bi ñoo ko gën a ragal feebar bi waaye nag na fàttaliku ne ñun ay góor góorgóorlu lañ hmm? moom tolloon na jamono yoo xam ne da doon dem lijjanti ji ñëw indil Marème fay Sall ñun nag foofu lañ toll te moom da koo dund xam na ko bu baax ñun nag ci loolu lañ toll waaye nag nañu may tuuti écart. bu mu toog ca palais ba wala mu gis ñeneen ñi nga ne il fonctionne rien naan ko lii laa laa la mu population ñibbi problème la ñibbi bi rassemblement la te lan élancer 23h 23h na fekk dugg kër c'est très simple. ne économie bi bakkan la yor day dund li dundal fonction nit ñi nit ñi di fonctionner comprendre loolu dundal économie économie bi kër yi dootuñ lekk te feebar nag dëgg waaye nag feebar nag am na façon feebar yoo xamante ne bi feebar bi téew ñoo liggéey ñi ngi koy daw ñi ngi koy moytu comme ni ñu ko bëgg a moytoo ñi ngi koy def waaye nag ñoom nañ ànd seen xel xam ne nit ñi sénégalais yi dañuy dof ay nit lañ yu xam li ñuy def ay responsable yor njaboot man ma yori doom yor njaboot am jabar ami doom danaa rey sama bopp du ma ko def dinaa gis feebar di ko somm du ma ko def waaye nag nañuy wax ak nit ñi ah, mel xam ne ay boroomi xel la ñuy waxal. mënoon a élancé mu xaw a guddi tuuti képp ku am njariñ ku amal njariñ réew mi duna ci mbedd bi moom. 23h 0h ku amal réew mi njariñ moom du ne ci mbedd bi ndax di nga tal foo wéer sa wet gi ba bu subaa boo xëyee mën a xëy te loolu rek la am réew du jariñ loolu kese la soxla ku ko amal njariñ. am réew soxlawut ay taxawaalukat soxlawut ay mbandkat soxlawut dara am réew dafa soxla ñoo xamante ne dañuy xëy waxtu di wàcc waxtu à partir de 23h c'est bon baax na waaye fii à partir de 17h 18h kenn ku ne gàddu sab saak ñun ñëpp ñu daje ci garage bi garage bi nekk fii nekk mbooloo ku nekk naan fee laa jëm ñee Kër Massar ñee ne parce kenn ku ne yaa ngi calculer parce nit ñi dañ ay xel la ñu dañuy calculer ci couvre-feu bi lañ bokk. dañ da ngay calculer ne man su ma fi toogee ba benn heure borom oto yi bu ñu demee du ñëwaat léegi nag rassemblement boobu ak njëkkalante boobu ak buuxante boobu yaa a problème pourquoi mu ñu koy teg nañu bàyyi à partir de vingt une heure vingt deux heures nit ñu wàcc balaa vingt trois heures ku ne dugg sa kër. dëgg la oto foo gis ci Sénégal fu fu fu couvre-feu bi bu heure bi jotee fépp rassemblement la léegi rassemblement boobu nañ ñu koy éviter man dinaa toog ci àll bi policiers yi di ma jàpp naa ma noo ko bëggee du ma ko def. parce que responsable la damay ñibbi nu ma mën a fexe ba ñibbi nag naa ko def loolu kese la ah. ñoom li ñuy bañ buñ ko def woon bu boobaa oto yi danañ mën a dem ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk balaa 23 heures ñëpp dugg seeni kër mu jeex waaye yenn tàncante yeeg yooyu c'est pas la peine ko gisandoo tey ñëwoon nañ fi nga xam ne mooy marché Colobane ñu koy waxtaanee li nga xam ne mooy li askan bi di xaar ci li nga xam ne mooy couvre-feu bi gis ngeen li gars yi wax foog naa ñu ñëpp tegoon nañ tegoon nañ ci suñu bët ni nuyu ñëpp nag bàyyi ma képp ku waay fu waay nekk nuyu naa la bu baax rawatina ñi nga xam ne ñooy seetaan 7vision TV nuyu naa leen bu baax beneen yoon seen émission Sénégal